Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ne tam mbokk yi ginnaaw itam ñu am dëkk lool ak kontaan di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi seetaan di dégg ci rajo Afia FM Dakar 93 point 0 ak di bàyyi ko suuf ci Dakar tey nag ñu ngeen ko déggee woon macha allah ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi ci Thiès waaye rawatina fii ci xadra bi fii ci kër gi nga xam ne fa tabaarakallaahu mënees na ko tuddee itam barabu suñu borom ndax itam macha allah kër yàlla la ndax nit yàlla la ñu seet si tey jëlee ñu mel ni ci kër gi mooy kii yaani Serigne waaye kii mooy kër gi nga mooy kër si Aliou Malick kii mooy kër gi nga xam kii mooy kër gi nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Ndiaye yàlla na suñu borom yokk leeral mbokk yi na rajo Afia FM Dakar 93.0 réeru moo leen gën ne rajo Afia defar lu ma ñett émission yoo xam ne jagleel na ko koo xam ne gis ko rek ci image wala ko rek ci def waaye gis yàlla li muy dogal tey jii lépp nag ñu yàlla te allah ñu mel am njëkk ak kontaan lool lool lool lool toog ak kilifa goo xam ne tey bi ñu ko xoolee suñu xel suñuy jot dafa dem ci ki nga xam ne mooy góor ga nga xam ne tey. moo yëkkati woon siraan bu rëy jox ñu ko waaye moo yëkkati woon ñoom feeta jox ñu ko ñu ngi a rajo Afia FM Dakar kan la mooy Cheikh am Seydou Abdoul Mansour si borom yi yaakaar naa ne itam loolu El Hadj Souleymane Pay bi ñuy dégg mën na ci li nga xam ne yàgg na waaye tey biñ ko xoolee tey image boobu moo del soir suñu jàkkaarab tey mooy Serigne Habib Gueye nekk général du Cheikh Seydou Abdoul Mansour si borom daara yi mbokk yi tey ki ngeen di seetaan ci rajo bi ci ci bi di ko ci rajo bi mooy Serigne Habib seet bu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si borom daari mbokk yi muy nitu yàlla di nit ku yiw ndax boo déggee ci kalaamaam gis ko ci image ci tey xam ne kii nitu yàlla dëgg-dëgg mu ñu nit ku ngi ci moom moom nag nekk koo xam ne li ñu def njàngat ci moom ku yaakaar yàlla doyloo yàlla xam yàlla waaye nangu la nga xam ne mooy dogalam yàlla tey mbokk yi gan googu la ñu am sang ngi am mbégte lool di ak kontaan di la jéggalu di wax salaamaaleykum wa rahmatulah macha allah mbokk yi ki nekk ci kàddu gi mooy seen mbokk El Hadj Mansour Mbacke ànd ak El Hadj Mamadou macha allah ñu gërëm leen bu baax a baax gërëm leen équipe technique bi nga xam ne ñoom ñoo war a sotti yàlla yàlla fay euh, tey nag jotaay la boo xam ne spécial Serigne Habib Gaye la. ñu koy waxee ne incha allah lépp lu jëm ci gàmm gi atum 2021 euh, daf li loo xam ne moom itam rajo Afia di ko cëral Serigne Habib Gaye allah rabbi lii moom paas la boo xam ne mooy lii li nga xam ne mooy jotaay boobee waaye nag am na yeneen ak yeneen yoo xam ne incha allah rabi da ngeen ko mën a suivre ay jaar-jaaram ay waxtaanam ay conférence am lépp incha allah bu ngeen toppee rajo Afia ci jamono yi ndorte gurd gi ba ci bisu gàmm bi lépp danañ ko jël jagleel ko góoru yàlla bi ñu nekk ak muy sëñ Habib Baye waaw sëñ Habib ak sëñ Mansour Sy bu ñu ko waxee xam ne tam ci bokk na ci njabootu Cheikh Seydi Mouhamed Mansour ñu ne mekk wala ñu gëstu ci gëstu bi ñu def ne sëñ Mansour Sy ku la bëggoon la ba tax ne tam jox la cër boo xam ne tam moom nga bëri sow mu jox la waaye tam mu amal ak ci xel ci yow ci sa doxalin ci sa jëfin ak nang waaye ak dëggu gi nekkoon ci yow ndax mën nga dikk ñun xaw ma ne si diggante ak seet si li ma xam ne fan la tàmbali ak jaar-jaar. waaw tabaaraka laahu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Mbaye jërëjëf kàddu yi rafet na ñu tabaarakallaahu euh, ñun xam naa sax ñoom daa am xel ñu waa Tivaouane ñoom bu ñu joxe ñu gën ñu rek ñu gàmm gàmm nag euh, daje nit ñi ñu dajale nit ñi ñuy gàmm du rek ma gàmm waaw tabaarakallaahu dajale ko dañuy wax waaye gàmm moom bu ne bu ne bu ne bis mooy julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa aasi bi Seex si sa kilifa euh, ñu doxalee noo noo xam ne yow bu ñu leen euh, di leen mbir leen bi xam ne sa kilifa bii kat bi ñu def nii bokk da li yàlla digle li ñuy wax nii bokk da li yàlla digle doonte da waaye ñun amul dara ñun vingt trois ñu gis si Cheikh Seydou Mouhamed Mansour ñu mujjee di ko yàlla ñu ko ku bàyyi woon xel xel ci raay bànk na ku jógee ñu ci yàlla mu ànd ak bu bëgg képp ku baax la sëñ Mansour nit ku baax la jógee xam la loolu nga xool yu Cheikh sëñ Mouhamadou Mansour jikko yu yàlla ak jikko yu ñu benn rek sëñ Aliou Gueye ak sëñ Mansour bu ñu def wàllu kër gi ñu mel ni vraiment dañoo wax ne sëñ Mansour ak am na seen at yi am na ci yoon différent yoo xam ne différent yi yoo xam ne kii maa la sëñ Aliou Gueye si waa yow mën ngaa ko wax at dese juróom-ñeenti weer te almadi man fekk naa ko ci almadi lépp lu ñuy wax sama biir xool sama xalaat ak sama taxawaay bi man du ma boole yàlla dara yàlla kenn yàlla kenn te kuy góor yàlla kuy góor yàlla am ci yàlla doo doo doo njëkk di ko di wax ni yàlla ñun ñun yaakaar ñëpp ñu nekk ci kàlla kàlla ñu ngi ci nekk ci góor yàlla yëpp. gëm nga ne yàlla mu ngi lépp moom kenn ku dul yàlla du ñaar Seydou boobu la si radiyallaahu taala anhu daf daan wax moom loo xalaat ne jiw moom loolu la bokk ak yàlla bokk ak yàlla loo xalaat ne jiw ne yàlla nii la mel yàlla bëgg naa lool dem wax ne soo sëriñ yàlla la loolu loolu ku ko wax sa kilifa sant kilifa da nga koy wax itam xam na ko ndax kilifa da nga wax ne moom yàlla la ñun gis nañ ay matériel loo xam ne sax ñoom da leen di yéeme ñoom lu yàlla ci kàttan loo xam ne yàlla dana ko dimbali mu dafa ne loo xam ne waaye moom buur yàlla boobu Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu taala mu ne moom ñu yéemu ci kéemaan bi ko bi bi bi ko yàlla jaaree doole ci moom moom yàlla day yéemu waaw boobu wax la boo xam ne waxu xaarit la ñu ngi daan yëpp moom la ñu doxalee kon tabaarakallaahu ñun daal li ñu xam mooy li ñu jiitu yàlla war nañ maam El Hadj Mansour radiyallaahu taala moo ma nekk li mu ñëw ba ma ba Seydou Boubou Kassi génne àdduna ba jubal ma seeti nee na ma seeti Seydou Cheikh Hadj ne ko ñu jaayante xam nga dogal di jaayante mu ne El Hadj Mansour ne ko ah, si dala baax waaye yëg nga ne maanaam Seydou Boubou Kassi yëpp ci aj altine ji lañ waroon a def waaye dama xam ne day métti génn ma ne naa leen jéggal ba àjj ci tariqa yoo xam ne nii kenn mënu la wax ni ak ay secte yu yële yoo xam ne nii lépp ñu yàlla bu yëpp keroog la ko joxal ne ko yow say dugubkat si ñuy yëpp ñu toog ci kanamu soxna bi kat moom ñu di yóbbu ci maa ne ma juróom ñetti weer moo fi dem ba mu dese ko fi ñetti weer mu ne a dem ba mu dese ñeent à peu près ñeent bi moom bi ñu desee ñeent fukki fan fan yooyu la départ Dakar mm-hmm. ak nga di ñëw Tiwaawan ñu ñëw Tiwaawan am fa ay fan départ ci bisu euh, euh, àllam mm-hmm. waaw ba la seen euh, génne mm-hmm. ci yoor yoon dégg ma maa ngi jàpp sama xel ne sëriñ Mansour bi dafa mel ni day génn Tiwaawan waaye doo ko dellu si Tiwaawan ma woo Omar Diop mu ngi dund yoo euh, xam ne joram la ma woo ko téléphone fekk ñoom ñoo ñoom ñoo ñu ci ak cortège si oto oto yi leen topp ak gendarme yi leen topp escorté euh, ma woote ma ne ma ne Omar Diop euh, du nuyoog alaaj abi moom mu di woote ne ko li muy xalaat bëgg te boobu man li muy xalaat mooy Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour si Tiwaawan ah, ma ne ko euh, fu ngeen jëm mu ne moom boora lañ jëm yéen a nga fa na suba ma ma dem ko am na ma la muy bëri bëri saal ba la bëri bëri euh, dafa ne mag ñi toog foofu noonu paa yi béjaaw yi toog foofu mm-hmm. mu ne yéen ñëpp ñaar fukki fan ak juróom juróom-benn aw juróom-ñaar moo ma des ci kaw fii waaye dama leen di jiital bokk ngeen ci sama délégation dama leen di waaye euh, commencé ñàkk ka fenn mu ne moom bokk waaw benn góor gis naa ko ñu ngi ko si ba sës si sama kanam maa ngi toog ñu ne sëriñ bi man de su ma sañoon nga déggal ci délégation waaw ndax fan yii dañ maa may guddi bu ndaw may bañ yaakaaram tas ku ñu moom fi nekk bu ma fonto da ngay dem ba nga jëmoon ëpp loolu waaw waaw waaye kan laa ko. boobu. sëñ Mansour waaw mu ne ma doxalal temps yow sax nee na ma ñaari yëpp mënuñoo bokk benn mbal <laughs> ma a ko yaa baax rek man duma dara waaw sama sofër bi tourné jaar ci gannaaw kër gi ne ma naa ñëw mu mu sàcc yi mu ma am nee na ma doxalal temps naa bàyyi sama maam bi ma soloon am mbubu bi mag bi ak suñu suma daal yëpp ëmb ko ci yëpp comme tànk la ma wax man tànk nañ laa doxe soro ma sax tànk te bi suñu suma daal maa la tànk rek man tamit man li su ma mosaana woo ne ma kaay wuyu su ma su man toog mm. Euh, li may li may li may xaar ci moom mu sant ma ko ma def ko mooy mu ne ma dee léegi ma dee léegi li may xaar ci moom li ci gën a tuuti mu sant ma ko ma def ko loolu waaw kon tabaarakallaahu euh, te fajar ga la ñu fa fekk mu ne ma deewaan danaa fa fekk fajar ñu ñu ñëw ci fajar bi bi ñu yegsee leen ñëw ñu ñëw toog ñu mën a dégg waxtaan ñëw leen ñu ci waxtaan équipe bi ci sa jaar équipe équipe bi moo xet dégg nga ah bi ma bi ma léegee euh, ma fëgg nit ñi ne leen sëriñ bi a na dana ñëw si fañam. waaw ma ne leen sëñ Mansour dana ñëw julli si fañam. Mhm. ñoom itam ñu woo ci àll yooyu yëpp woo ko fekkal. Mhm. waaw te fajar ga mu ñëw. ñu jël baaraanam bi teg ci suma dënn ne ma yow ma ne ko waaw mu ne ma julli boo bokk ku ca bokk yaramam xaram la mu ne ma koo euh, boo tiim delloo si baaraamam bi jiite na ne man nag bokk na man maay xalifa yàlla maay xalifa Seydina Muhammad maay xut bu sama jamono bi maa ko def jiite ma jiite euh, ci loxo bi yóbbu ma ma ma toog mu ne ma ne tekk mu ne tekk ma ne tekk ba mu yàgg ma ne ko waa si mu ne ma fii de gëj naa fi juróom-ñetti at ma ne ko ah mu ne ma waaw man tam ma jox suufu laal bi yëpp toile yëpp tàngoor yëpp yëpp ñu ubbi ko perte ma ko daal su ma ko gisoon leneen itam ak lu man doon danaa ko jàpp même bu kii daf may laal danaa ko jàpp léegi waaw sama papa ci moom la doon ko tabaarakallaahu euh, te suba ba ba ba set ba jar bu génne sama taalibe bi fekk joxe nañu bi toogee ba ay dix heures onze heures ma ne naa dem luy diwaan ma ñëw ne asalaamaaleykum mu ne tekk ma ne te asalaamaaleykum mu ne tekk ma ne benn ma dese ci sariya ma ne asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam bisimilah moo ci kanamam ma ne ma ah kay ma ne ko ah si ñu ne ma ah euh, sa xale yi ñëw nañ ah, million ma ne ko papa yow loo soxla loolu soxna dana ko def seet boobu man maa ngi yor xaalis sees ma xalaat ne nañu ko yónnee wari boobu jamono waree am waaye ma xam ne suñu ko yónnee wari wari bu am somb taw ñoom du am du yomb ko ma ne naa jël suma fekk suma oto bi ñëw na ma ne naa jël oto bi def ma ma gis benn waaye rek naaw euh, ko rek ma ma ma kontaan ba fàtte tëj bi waaw mu ne ma tëjee di ma ree waaw ma ma ma tourné tëj bunt bi xam ne ma ne waa ji toogal bi mu toog ci jàmm ne man ma toog ma jox ko xaalis ne ko xaalis bi ma laajoon lii ñaar ko lii moo ma ko jox ma jox ma ne ko nag damaa bëgg nga branché ko sécurité bi mu ne ma génnal sama diggante moom ma faam ragal yàlla la ku xaqan lool euh, yàlla la euh, borom xam-xam la ku mànd la ku nit la ku am xel waaw su moom bu bu nit ñëwee di wax moom li di wax ci keneen leneen sax soo toogee ci jotaay macha allah jërëjëf mbokk yi ànd ak rajo te Afia Dakar quatre-vingt-treize point zéro ci rajo bi Touba Bourg Afia FM point net ci télé bi mbokk yi tey yaakaar naa ki ñu daral li mu jota itam ëññ ci waxtaan rek matoon na sëkk du jotaay rawatina itam fi nga xam ne fi ñu toll bu nekk njàngate boo xam ne njàngale bu am solo la mbokk yi kii mooy Serigne Habib Gueye bu Cheikh Sidi Mamadou Mansour ci borom daar yi muy itam nit yàlla di mu xaddama Serigne Mansour waaye di nit koo xam ne la mu xon sànq rek booy mujj bi boo xoolee boo koy jàngat ci moom en tant que parce que ko xabaar moom ngay gis mooy kan ku xam yàlla yaakaar yàlla doyloo yàlla nangu dogal ak yàlla tuddal yërmande euh, sëñ bi gay macha allah ñaan yàlla mu guddal sa fan fan may déglu waaye bu ñu waxee sëñ yu Guèye ak tarixa Cheikh boo xoolee. fan yi passé bi nga ñëwee ci nga xam ne mooy ci Kër Massar la te ni démb boo xoolee senes bi tey ñu tëbee rek song ak mbégte ak kontaan mag ngi tam macha allah ñi toogoon ñëpp di taxaw ndax lan mooy kontaan ci sa taxawaay sa diggante ak senes bi sa diggante ak ndawi tarixa bi ak magi tarixa bi seen diggante macha allah loolu ci mën a baax. waaw Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour Mbaye euh, yàlla moom moom yërmande maani boobu moom moom ak mu wax ko ci nitam bu rabee ci nitam dafay balle ci jaami yàlla day balle ci jaami yàlla waaw benn wëllu yàlla boo amul ñeewante ci bindee bi amul jëf naa ne ci bindee bi amul mboolem fi wante macha allah nu euh, mu war a jëlee seen saal yi yëpp am na ko di njabootu Seex Abdul Xaadir radiyallaahu taala anhu suñu moom euh, yàlla dogal mu ne ma mu ne ma sëñ Saali Mbàkke radiyallaahu taala feebaraat yi euh, nga lay jox ay médicaments mun nga jox ci uuf la ci kaw waaw te boo xoolee ci ñi nga xam ne tey ci kan bi islam la bokk te muy yàlla nit yàlla bu mag boo xam ne bëgg na ak baax bëgg lu baax bëgg ñu baax ñëpp waaw léegi mboolem Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiyallaahu taala gis naa bu mosaa a jot xaalis bu bu bu mosaan a jot maleeku xaalis rek da ngay gis si saa si rek nga gis ni damay sonn génn yow nag da ngay xam ne kii bi tax ñu génn ñu xaalis bi la bëgg a ña koy xaar ak jaam yàlla yi nekk ci waaw bu génne demoon bay bay leb sax di maye waaw si leb di maye sëñ Mansour nag bu la mosaan na leb xaalis su lay su lay fay na nga mu fay ndax moom bu lay fay bu la leboon tey téeméeri junni su lay fay mën na laa jox cinq millions wala dix nga wax ko ne ko si ah téeméeri junni daal am loolu mu ne la jëlal toxaloo waaw loolu ci seen baax la euh, ah, moom yàlla daf ko defaloon wut sa milliardaire chaque jour dana ñun ñoo dana sàngam kër sàngam léegi léegi def naa naa gis terrain yàlla dogal ku wax Cheikh Diouf forward après ci jàppale wala booy damaa dama demee rek si moom ñu bokk wala parce que boo xoolee li nga xam ne moom moom mu fëgg la incha allah rabi nekk na loo xam ne ay milliards bi cee wala boo leen kat nga xam ne mooy booy dund ci wax seen waaw xam nga euh, Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour radiyallahu toog ba mu ñàkk rek ñu ne nga tàmbali sa jumaa teg fa yàlla ma teg la demal nga tàmbali wëliw bu toll boobaak léegi liggéey bi mosul arrêté ñu mm-hmm. ngi continuer di di mm-hmm. maa ngi sumb tam yeneen béréb yoo xam ne nii lii def naa ci deux cent millions lii def naa ci cent millions lii def naa ci ay trois cent millions trois cent millions te foofu dafa dem ci biir liggéey naa dafa lay def waaw maa ngi euh, ñu nee si Habib euh, xam ne moom ñu ngi léegi bëri ci ñoo xam ne ci lan waaw jërëjëf xam nga Seydou Boubacar Sy radiyallaahu taala am ay jamono ñëw nañ moom nit ñëw nañ moom ne ko si ah eh, réew na dund bi dund yàlla defal sutura loolu ñaan gën ko rëy euh, wàllu politique bi nga xam ne euh, waa réew mi ñi ci ñu yàlla sédd ñi politique ñoom itam ñu ci bëri ay nit yu ay nit baax lañ ay nit yu bëgg diine lañ am na ci ñu bëree bari am na ci ñoo xam ne itam ay doomu soxna lañ tabaarakallaahu itam euh, sëriñ si ñu nangu mukk état bi di teg nit ñi ñu ñu waaw ñu ko mos nangu lépp loo xam ne nii état baa ngi koy doxal su su su suñ jéggalee sëriñ si euh, loolu loolu sëriñ balaa doon ci wetam mu bu tere moo am yàlla waaye dootu sëriñ sëriñu kan kon tabaarakallaahu euh, état ak sëriñ dafay dafay yàgg waaw dafay yàgg te état euh, moom daanaka affaire àdduna la xam moom lañ maîtriser ñoo loolu yàlla leen ko séddee su ko defee su amul ñu toog ci seen wet naan defee leen xam nga Macky moom avant muy doon président de la pare bu soobee yàlla bu si waaye dañuy moom pare bi su génnee pare maanaam waaw bis bu waaj jeexalee. waaw waaw xam nga nguur gu dul jeex amul nguur gu dul waaw ndax moom premier avant muy falu ñun waxoon nañ ko ko te sëñ Mansour moo ko ñaanal yàlla mu falu te avant sëñ Mansour

yàlla nga am benn mandat la am benn mandat nga ne ko pour ñu ne dundul sarax bi sarax bi bu génnee lu koy def ñaar ñaar la ko wax nee na ku utoo ñett utoo ñeent utoo ñaar ngay ñaar yooyu ngay ut um saa la daa ko jël boo ko ndaat la ko waxee um saa la daa jël mu ne ñii taw du sottee ci ñoom loolu ci kàttanu yàlla lay sottee ci loxo suñu borom lay sottee waaye léegi ñaar la ko seen bay waxoon keroog ñoom Baye Fall yi njaboot yi am na ñoo xam ne ñu ñu bëree bëri bëri ñoo xam ne ñu ngi fii farolu ñoon matu sax suñu sañoon Macky jógee waaw waaye man dama ne leen Macky dañuy jógaat dinañ dégg ñaareelu mandat ndax sëñ Baye nee na ko yàlla na nga am ñaari mandat ñu ngi ñu incha allah di bëgg loolu ci 2019 waaw bi avant élection boobu ay quelques mois moo des jaboot yu bëri fii ku ci ñëw mën a la dina faluwaat parce que sëñ Babacar si wax na ko jeex waaw loola ah, bi yaakaar nga moom dana forcé ci waa seen mandat ah non moom euh, yàlla nag du ko neex lay def yàlla du koy neex lay def waaye man daal ci sama bis bi si bopp su ma su ma sañoon moom yéene naa ko wax yéene naa ko moom mu yem ci ñaari mandat loolu laa waaw na na yem moom tedd na ba noppi yàlla defal na ko yàlla defal na ko sutura toog na ñaari mandat ci jàmm ñu euh, mu bëgg daal moom mooy mooy lu mu jàmm mooy lu euh, jëf ci am beeg seetaan bi ak rajo Afia FM Dakar 93 point 0 3Afia FM point net tey nag euh, suñu gan mooy Serigne Habib Gueye bu Cheikh Seydou Maodo Mansour Sy moo leen dalal. déglu ngeen waxtaan lu am solo bi nga xam ne ci la nekk jamono ji ak waxtu yi euh, sëñ Habib euh, mu mel ni que bu ñu xoolee fii jamono toll tay kilifa diine yu bëri tey ñu ngi coow ci wàllu internet bi ba ci démb Serigne moom moo ci wax euh, nga xam ne xalifa bu Thiénaba wax na ci muy tam internet bi nga xam jii ne ku bëgg a daal def sa femme ba cam koy jaarale def ko semestre bi ndaw ñu bëri tey jii ne ñi ci liggéey waaye ñi ciy yàq mu mel ni daal ci li nga xam ne mooy internet bi tey en tant que kilifa diine ban kàddu nga ciy waaw xam nga nit moom euh, buñ la yaree rek doo mën a wax lu safaan waaw buñ la yaree doo mën a wax lu safaan nit itam euh, daanaka dafa yàlla dafa dogal am ñoo xam ne dañoo xaw a yore jikko melantaan ñaare boo boo warul ci kawam la màtt màttee rek danga koo dajji danga ko fitnaal mu màtt la waaw léegi nag màtt màtt boobu jarul jarul da koy rey ndax nag est-ce que du yow yaa ko tooñ dañu bëgg waaw li ci def yëpp waaye daal euh, tamit bëgg sa te am na loo xam ne boo dund ci àdduna bul fexe maanaam waxin la bul fexe sa passeport àdduna am dàq la waaw sa passe gis nga tey boo amoon passeport diplomatique passeport diplomatique boobu buñ ci buñ ci buñ ci ak leneen ba nga xam ne léegi li war mooy passeport bi mm-hmm. àdduna mooy passeport jullit mm-hmm. léegi nag euh, jullit bi bu nekkee ci àdduna mm-hmm. lépp lu mën a moytu lu koy atal bàmmeelam wala luy luy luy luy luy métital euh, taxawaay bis koy jëm wala buy taxawee bis koy jëm ba ku nekk la nga méritoon yàlla jox la ko nga war a def nga war a def nañ nañ di def naan te doomu aadama yi boo boo leen parmaalee rek ñu wax lu rafet ñu ci ci doomu aadama des sa diggante sa borom suñu borom mën nañ koy jéggal ci leen magal waaye yàlla ñu ñu jël ko jox kenn ñu jël euh, tiyaabo kenn itam di ko jox kenn du ku nekk ëllëg yoomal ka am doo ak boo amee sa moromu doomu aadama wala loo ko wax wala loo ko def balaa ngaa dugg àjjana bi ñu bëri yàlla yàlla dina waa kay jërëjëf sëñ Habib mu mel ni que ñu ngi dëgmal li nga xam mooy nurwaay leeru leeru yàlla Muhammad sallallahu alayhi euh, bu ñu xoolee nag euh, question bi ma la jox ñaar la yoo xam ne moom itam dañu koy posé loo benn bi mooy ñu mel ni ki Tiwaawan ñu nekk lu bëgg a jege ñaari at muy gàmm ndax li nga xam ne mooy mbas bi ban jàngat ñu am ca waaye sëñ Habib Beye dafa am ñoo xam ne ñoom itam ñu ngi tàmbali di fësal ne gàmmu bi daal gàmmu bi daal nag itam saa boo weeru li nga xam ne gàmmu dëgmale rek dañ ci àddu wax ko en tant que nag mu xadam boo xam ne yaa ngi bokk ci njaboot Seex Seydi Mouhamadou Mansour bokk ci Tiwaawan di fa kilifa am fi kër macha allah di kilifa ci ñun réew di Sénégal yaakaar naa ku ne itam a jiitam dégg la la euh, tey lu ñu mën a baax a kilifa la waaw xam nga euh, Seydou Boubacar Sy euh, lépp lu mu wax tegu ko ci avant état di di di di di duy matukaay moom fekk ni jël na matukaay bi état demee ba nga xam ne xaw na dégager responsabilité bi ci yenn yi moom itam mu continuer di leen continuer rek waaw kilifa bu mat kilifa la ba tax na ñàkk gàmmu gi ci façon bu ñu ko doon defee man sama gis-gis daa mu du du biddaa daa mu du biddaa xëy na daa lii façon bi ñu koy defee nii xëy na mooy biddaa waaw waaye waaye waaw mooy dajale nit ñi tànt benn tànt salli ala sayyidina Muhammad wa sallim mooy gàmm euh, euh, question la boo xam ne dañu ko jot ci li nga xam ne mooy bi ñuy ñëw euh, am mbokk boo xam ne moom itam ne woon na ne xalaat si Habib li xam ne mooy diggante maam Seydi Hadji Malick xam ne mooy itam xam ne mooy li xam ne barabam ca Ndar mm-hmm. li tax Seydi Hadji Malick waaw xam nga nitu yàlla mooy doxalee noonu ak itam moom Seydi Hadji Malick nit ko amoon xel la waaw xam nga booba jamono am na ponk li ci ñu def ci suy bi ba si te pare te donte pare ñee na ko jege si te yow moom bi ñu nekk ne ko nag jiitu man man ñu sama xalaat bopp kese ña ña ña ko ngànk ña ngànk yéen yow mm-hmm. lañ xalaat ñu proposé na ko ma noonu est ce que itam euh, nekkul loolu mooy ñooñu nga xam ne tam ñoo fa nekkul est ce que nekkul loolu taxoon ñoom xeex ki nga xam ne mooy seen daal ci li nga xam ne mooy euh, as bi amoon. waaw loolu moom. mag ñi waroon Seydi Hadji Malick kenn xewati euh, Seydi Boubacar Sy waaw ñëpp ko bëggoon jàppale nañ ko fonk ko ñàkk nag léeg-léeg yenn ñoo xam bu ñu lay fay am tax nga na ña ko doon fay ñoom nangu nañ euh, diggante sëñ Habib Gaye ak li xam ne këru diine hmm. dañu nemmeeku tam këru diine ju rek sëñ Habib Gaye am na ko cër boo xam ne def na ko. ci diggante ak li nga xam ne pour bi ci mu baax waaw tabaarakallaahu Cheikh Sidi Mahmoud Mansour eh, yar moom boo xasee am am fi ngay teg sa tànk xam li yàlla bi nga xam li mu tere eh, doo doo man lu ñu formal bu yàlla formal waaw kooku ku yàlla defal nee na nambu nag bu tëddee ku ci nekk fa ngay jàpp pour mu dox pour ko xeex waaw pour xeex fa ngay jàpp moom gis naa tool la tool boo xam ne mbay bi kenn xamul fu mu war a yem kenn ku ci nekk fa nga jonkan di bay keneen kuy bay keneen yoo lay bayee yoo lay jàpp ci mbay yooyu moom ngay jàpp sëñ Habib mu mel ni ci waxtu bi ñu bëggoon lépp ndax benn une heure de temps la ñu amoon waaye mu mel ni itam dugg nañu message bi nga xam jagleel ko li nga xam ne mooy tam jeunesse su Sénégal ndax bu ñu xoolee sa diggante ak ndaw yi diggante la boo xam ne macha allah mën na ne tey yaay seen seen jeunesse bi muy ndaw bi ndax itam ndaw ñi tey jii day bàyyi na la xel jox la ñu nga xam ne mooy yaay seen waajur am na ñoo xam ne itam bàyyi addu lañ koy wooye ndax rek mooy duggeen attaque tey lu ñu mën a baax itam wala ban message ñu yëkkati jagleel ko askan Sénégal waaw xam nga rawatina nag mbokki diaspora yi nga xam ne ñu ngi lay xam nga euh, sant yàlla ndax euh, doomu sax ne fépp fu julli nekk te am na yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla dooleel lislaam yal na yàlla kàttanal lislaam yal na yàlla yëngati lislaam dooleel dooleel dooleel ko yëngati yàlla dooleel may lislaam nam te am na yëpp lislaam fépp fu julli nekk ñu nit ku yàq nit ñu la ku manti doon que trois mois dañu war a dem ci ay élection loolu nga bërki démb rek euh, sa mbokk mu baax ci Touba wax na ko muy dénkaan bu am solo euh, mbokk yi nag euh, ñu ngi ci jéem a samp seen ndënd ci gox moomeel yi rawatina gox ak goxaat yi tey jii mu mel ci quartier boo jëm wala dëkk région boo jëm moo xam Dakar la moo xam Thiès la foo ci dem tey jii de am na ko mbër moo xam ne moom itam ñu ngi bëgg xëccoo gox moomeel yi ñooñu tey jii mu mel ni kii la njëroon yombut am na koo xam ne moom itam moom moo ko yoon démb moo war a foolee ba ñu toog am koo xam ne moom itam warul foo war na itam moom moo ko yoroon démb ba moo war a enchaîner politique tey loolu ñuy dégg ñu bëgg a falu maire yi nga xam ne tam ñoo fi nekk jamono waaw xam nga nguur moom suñu borom moo koy joxe moo macha allah kon su ko defee rek waxin la kàddu bu mujj gi ak biir kàddu gi ci li nga xam ne ak séance bi ak tam ñi nga xam ne tam ñoom bokk nañ ko ci réew mi kàddu gi incha téeméeri at ak ñaar fukk sax yàlla ji doy na sama mm-hmm. te téeméeri at ak ñaar fukk du dara ñaar mm-hmm. waaw te te kenn xamul ñun ñi dund sax ñaata at dañuy tëddaat ci bàmmeel bi gis dañu doog a taxaw waaw su neexee suñu borom ay milliards yi at mën nañu ko gis dañu doog a ma laa ne deewam bi ñàkk man suñ neexee suñu borom mën nañoo tëddaat ay milliards at ci bàmmeel gis dañu doog a taxaw waaw kon kuy ragal ragalal yàlla kuy bàyyi xel bàyyi xel yàlla ok mbokk yi jërë ngeen jëf ci am bi ak safoon ak rajo Afia FM Dakar mu mel ni ki tey télé bi ak rajo bi ñëwoon fi nga xam mooy ci Thiès ñu doon seet si fi nga xam ne macha allah di sëriñ Abi Tey di Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour kon mbokk yi doon seetaan tey kii ngeen jàkkaaroon ni mooy sëriñ Abi Tey bu Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour si moom moo ko mu macha allah boo ko xoolee. sa xel dem nag ci ki nga xam ne mooy buuru yàlla ga borom sama maam nee na muy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour kon su ko defee moom sëñ Mansour moom ne yàlla yàlla yokk leeram te tax ñu ci barkeem waaye ki defee ki nga xam ne tey moom ngeen doon déglu waxtaanam bu am solo bi de tey mooy sëñ Abi Gaye ñu ñaanal ko yàlla mu guddal fanam lool lool lool lool te rafal ko teg ci barke Cheikh Tidiane mbokk yi kon mu mel ni ki rek yéen ñi doon topp ci rajo bi ak ci télé bi seen mbokk El Hadj Mansour Mbacke moom ma nekkoon ci kàddu gi gërëm bu baax a baax am na ci wàllu caméra bi sant ko baax moom Mamadou mbokk yi itam gërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi di leen fàttali incha allah suñu ànd ak Serigne Habib Gaye bi incha allah mu mel ni ki bu ngeen fàttali ko ci ginnaaw am ngeen ñetti émission yoo xam ne moom ñu ngi ko jagleel ci ay conférence am yoo xam ne ñu ngi itam ci internet bi déglu ngeen ko waaye incha allah yemuñu foofu incha allah ci li nga xam ne mooy weeru gàmm bi bés bu nekk incha allah rabi écho di gàmm. moom mi dañ ci fas yéene dalal bu ñu koy dalalee nag incha allah rabi système la boo xam ne rajo Afia mi ngi ciy liggéey incha allah da ngeen ko mën a teewlu mu nekk rek itam ay jotaay yu am solo ndax ren moom lañ tànn moom mi def ko mu nekk partenaire numéro un bu rajo Afia ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax mbokk yi yéen ñi am na nag rajo Afia maa ngi leen di sant baax ci am bi ak seetaan bi di leen dig incha allah rabi beneen jamono wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf yàlla alhamdulilah